إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور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 buur yàlla tabaraka wa taala moo ñu ko xéewalal ci mbaaxam waaye moo ko xéewalal ci coobarem waaye mooñu ko xéewalal tamit ci ngéneel bi nga xamante ne mu ngi fa moom waaye mu di ko dottil ci kaw mbindaafoon yi rawatina yow mi nga xamante ne yaay jullit mu bokk xéewal yooyu mu bokk ci xéewal yooyu yàlla di dottil ci kaw mbindaafoonam yi rawatina yow mi di jullit ñaari xéewal ya nga xamante ni moom lañ daan waxtaane ak mbokk yi benn bi di xéewalu julli waxtuy fajar ñaareel bi di xéewalu nelaw bi nga xamante ne ci mbaaxam ak ci kàttanam mu ñu ko yenkeewal bi ñu ko jëfandikoo ci anam bi nga xamante ne moo méngoo ak suñu bëgg-bëgg kon xéewal yooyu yàlla buur bi tabaraka wa taala xéewalal yow mi di julit dafa am sa yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa lam la jàngal ne xéewal yooyu bu la ko buuri yàlla jàppandalale ba nga ko jëfandikoo boo ci noppee dafa am nang ko war a sant sant boobu noonu du am dara lu muy yokk ci nguuru yàlla waaye ñaaka koo sant yi tamit du am dara lu muy wàññi ci subhaanahu wa xanaa kañ li fi nekk mooy yow moomu lay doon njëriñ si yow ndax dañ la koy sottil ci say téere yi jëf keroog bés penc bu ñuy natt say jëf di ko peese ba tax na peese kay jëf yooyu buur yàlla tabaraka wa koy wax doomu aadama bi ci téere bu mag ba ñu yore fii ci alquraanul karim mu ne bés penc da di bi nga xamante ne ca la ñuy peese jëf yi ba tax na buur yàlla nee na ci suratul qaariya audu billahi min alsheytaani arrajim fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ciishatin raadiya mu waxaat benen aaya ba mu toftal ci aaya bu ñu njëkk wax ni mu ne fa wa amma man xafat mawaaziinuhu fa ummuhu haawiya wa ma adraka ma hiya naarun haamiya bur yàlla nee na fa amma man taqulat mawaaziinuhu képp koo xamante ne sa peesekaayu jëf balance ba ñuy peese say jëf keroog bés képp koo xamante ne peesukaayu jëfam yi diis nañu gann ci lu baax buur yàlla nee na fa huwa fi ishatin radiya kooku moo nekk ci dund bu mucc ayib dund bu neex waaye nag mu daldi ci si toftal beneen aaya ba topp ci aaya bi mu ne wa amma man xafat mawazinuhu képp ko xamante ne sa peesukaay jëf keroog bés pénc woyof na toll ci jëf ju baax jëf yu ñaaw yi ñoo gën a diis yàlla nee na fa ummuhu hawiya kooku mooy koo xamante ne dundam toskare na ndax hawiya dafa bokk këru safara su jahannam béréb bu ngi naan hawiya yàlla nee na kër bu ngi naan hawiya ci këru safara nee na kooku jëfam yu baax yi woyof ci balansu peesukaay ba jëf yu ñaaw ñëw gën a diis keroog yàlla nee na ku peeseel sa jëf keroog xamal ne xaawiya mooy doon sa mujjanteel yàlla daal wax yonent bi ne ko est-ce que xam nga ana lan mooy xaawiya mel ni yonent bi da ko naan déedéet xawma luy xaawiya pour yàlla daal ko ne naaroon safara boo xamante ne xaamiya tàngooru safara suusu fooko ko natt weesu na ko mbokk yi loolu ñu war kaa mën a gëm ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam wax nañu si maana xadis nee nañu tàngooru safara ñaari fason yamuy tànge coo saxaar si moom la yàlla di ëf ci jaww ji looloy wàcc si àddina si ba tax na yaramu doomu aadama yi mënuñoo dékku tàngoor ya ñuy nekkee ci àddina si ba tax na léeg-léeg nga gis ñu muy faat bokk na ci tàngooru safara su jaxanam tàngoor yi ñu miin mu doon tàngoor goo xamante ne léeg-léeg nit ki day étouffé léeg-léeg nit ki day ñàq xepp bu doxee tuuti mu ñaq be yaramam di siit waaye bokk na ci tàngooru safara bi léegi léeg-léeg seddaay ju tar joo xamante ne deret bi mun naa wow kon ci yaramu doomu aadama bi comme xol bi mën naa taxaw mu amee fa arrêt cardiaque loolu yépp daa bokk ci xeetu tàngooru safara kon bu yàlla ne naarun safara la bi nga xamante ne xaamiya foo takk tàngooram weesu na ko waaw kañ nga déggee ci ne tàngoor bi mën naa nekk tàngoor yañu ñu miin comme tàngoor gi war naa mën a nekk seddaay wañu min ah ndax lépp dafa bokk ci melokaanu safara su jahannam te doomu aadama ak jëmam ju tuuti ak ñakk kattan ba mu nekkee mënut dëkku dékku lenn la yàlla di dottil ci kawam waaw xéwal yi bu ñu bëree nga loof waaw safaanu xéwal bu ñu bëree ba léegi nga daldi loof ñu déggee ci ne doomu aadama dafa loof dafa lott pour muy dëkku lenn ci la ko yàlla di wàcceel ndax moo ñu ne xuliqal insaanu daifa man yàlla ma bind doomu aadama mu doon ku ñàkk kàttan ci lépp nag waaw ba tax na ñu di leen di fàttali ne rek bésu gaaw gi di tey moo tombek ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tëbaski amaana suba wala ginnaaw suba incha allah ñu tàmbali ci la nga xamante ne mooy atum julit ñi nga xamante ne mooy at bu bees bi tey jii di gaaw mu tombek ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tëbaski amaana ci ñeneen ñi tey mu doon njëlbeenu fan walla amaana ci ñeneen ñi suba doon njëlbeenu fan waaye ñu di leen fàttali ne rek zul xijja di wéeru tabaski mu ci njomboxtalu njeexintal ba ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggantek ashura di fukkilu fan ci weeru tamxarit fukki fan ak ñaar wala fukki fan ak benn fukki fan ak benn moo des suñu diggantek ashura di fukkeelu fan ci tamxarit amma weeru tamxarit ci jëmmam mën na tàbbi tey comme mën na tàbbi suba tey mën na doon njëlbeenu fan ci ñenn ñi suba mën na doon njëlbeenu fan ci ñenn ñi ala kullin li ci mënti nekk daal ñuy ñaan yàlla buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bay atum jullit bu bees bañuy ñuy waaj a dugg ni yan na doon atum naataange yan na doon at bu lamb xéwal nawet bañuy siinu seenu na ko yalla def nawetum jàmm yal na ci yàlla ñoral la nga xamante ne mooy dund yañuy ñuy bay ndax yàlla moo ne wa yunazilul gaysa bokk na ci juróomi kumpa yi nga xamante ne yàlla donga yore caabi juróomi kumpa yooyu mafatihul gayb xamsa laa yaalamuhum illa allah kumpa magasin wu kumpa yi nga xamante ne juróom lañu te caabi ya ubbi kenn yoru ko kenn xamu ko ku dut yàlla bokk na ci magasin yu kumpa yooyu la kenn xamul yàlla ne woyu wa yunazzilul xaysa yàlla mooy kiy wàcce ndox jóge ko ci asamaan si nga déggee ci ne am na litre yoo xamante ne ñoom dañuy dekkal suuf si di ko dundalaat am na liitaru ndox yoo xamante ne ñoom ñooy ñoral meññeef am na litre yoo xamante ne ñoom la bay may di naan am na litre yoo xamante ne ñoom dañuy raxas lépp luy salte ci béréb bi am na litre yoo xamante ne ñoom daanaka yàlla da koy nattoo ñenn ñi pour ñu di si gisee màggaayu yàlla kon scientifique yeeg buxaaba yeeg intellectuel yeeg boroom xam-xam yi kenn ci ñoom seen xam-xam àggagul ñaata liitiru ndox mooy wàcc mën nañoo natt millimètre taw na béréb sangam nanga na béréb sangam nanga mu millimètre comme nuñ koy déggee ñu di ko wax ci météo ak ci rajo ñooñu seen xam-xam fa la yem ndox bay wàcc bay ñoral lañu ji loolu seen xam-xam àggagu fa amaa ndox bay ñoral bay safal suukar ci li war a am guu suukar xam-xamu scientifique yeeg intellectuel yeeg ñay saytu météo seen xam-xam àggagul foofu ndax xam-xam jooju yàlla bu leen ko xamale xanaa mu jàppandala leen ko de mais nar nar nañ ci sonn lool waaw masalan ñu ne xaal ba ñu béy wala dugub ba ñu bay caf ko ba fa nekk vitamine ya fa nekk calcium yeeg ñoom seen comme gars yi nañ koy waxe ndox bay wadd ci kaw meññeef boobu dem ko jox guu bi walla mel wala bi ni mel xam-xamu ndox litre boobu yàlla rekk a ko xam joxu ko kenn ba tax na ci tënk mu nañu wa yunazzilul sax yàlla mooy kiy wàcce ndoxu taw jóge ko ci kaw ak bu wàccee na muy def litre bu nekk gut ndox bu nekk toq ndox bu nekk lay doon liggéeyam bay daanu ci géej geeg bay waddee ci asi ngelaw bi contrôlé ko indi ko ba afrik loolu yépp ci xam-xamu yàlla la bokk subhaanahu wa kon ñaan ko moom buur wi tabaraka wa moom mi am kattan bi ni mel yàlla ñu yàlla dottil xéwalu ndox bu ànd ak jàmm mu ñoral meññeefi yi barkel mbéy bi doomu aadama yi jëfandikoo ko ndax mooy béykat bi nga xamante ne moone ne falyandurul insaanu ila taamihi anna sababna al maa sabba thumma shaqaqna al arda saqa fa ambatna fiha habban wa inaban wa gadban wa zeytunan wa naxlan wa faakihatan wa abban wa hadaika gulba muy waxak ak ñun ba mu ne ñu loolu yëpp ma leen ko ma defal mu doon mataan lakum wa li anaamikum loolu ma wax yëpp xeetu meññeef yi loolu seen yóbbal loolu man yàlla maa leen ko defal comme cadeau waaye nag ngeen bokk ci ak seen bayima yi nga xamante ni ñoo leen di taxawee ngir ngeen mun a béy béy bi nga xamante ne da ngeen koy def comme ni ngeen ko bëggee waaye nag képp ko béy ba noppi ngooñ beeg li aju ci lekk mala bi fas beeg mbaam beeg nag bi ngal la nanka ka jox yow yàlla jox na la la moom mu ne la furu yeeg meññeef yeeg pepp yi lépp yaa ko moom waaye nag la lakum loolu yéen ko moom waaye nag wali an amikum ak seen jur yi waaye jur bi tamit li moom ci ngooñ nga jaay ngooñ bi jur bi di dem dugg ci toolu jàmbur yi bi xiiroo ko ŋaayoo ko giita ŋaasa di dugg diggante sàmmkat ak béykat ah loolu war nañ kaa xoolaat yow li nga moom yàlla nela loolu yaa ko moom jëlal li nga béy jëlal sa mboq jëlal sa dugub jëlal sa ceeb jëlal sa pom jëlal sa orange jëlal sa fruit jëlal xeetu pepp gerte lépp yaa ko moom waaye ngooñ bi nga lawee na nga ko bàyyeeg jur bi na ko jur bi jëfandikoo mu bañ a dem dugg ci toolu nit ñi waaye nga jël ngooñ bi tamit jaay ko ëllëg nga jëndal ko aliment bétail nga jël xaalis boobu dem jëndee ko saako ceeb ak dugub nga jëlee ko dem jëndee ko tigadege ñëw daal di dundee xaalisu ngooñ ba jur bi war a jëfandikoo mais jur bi bu amul lu muy lekk bu demee fekk toolu jàmbur verte bu fa duggee yaa tooñ yow borom jur bi yaa tooñ su boobaa ndax yàlla am na lum la jox nela lii yaa ko moom jox na la sept produits juróom-ñaari qualité produit wala huit mu ne la loolu yaa ko moom neuvième bi juróom-ñeenteel bi nee na loolu na ko bàyyee jur bi mooy ngooñ bi ñax bi mais nga jël ngooñ bi tamit def ko xaalis au lieu nga jëndal ko aliment bétail nga jël xaalis bi dem jëndee ko saaku ceeb jëndee ko diwlin jëndee ko essence jëndee ko voilà la la neex nga jur bi nga ne demal taxawaalu jur bi bu demee fekk toolu jàmbur vert bu fa duggee wallahi yow borom jur bi yaa tooñ na boo ko bàyyeeku ngooñam jooju nga yeew ko foo ko yeew takk ko jox ko ngooñ bi mu di ko jëfandikoo amaana du mun a dem dugg ci toolu jàmbur yi amaana boo jëndee ngooñ bi jaay ko xaalisu ngooñ bi nga jëlee ko nga jëndee ko ripaas wala aliment bétail ñëw jox ko amaana du am temps ba muy taxawaalu bay dugg ci toolu jàmbur waaye yow ñu ne li nga moom jël nga ko la jur bi moom jël nga ko léegi jur bi bu demee taxawaalu ba dugg ci toolu jàmbur kon yow borom jur bi yaa tooñ kon nag nawet baa ngi nii di dégmal yal nañu ko yàlla defal nawetu mbarke amin yaa rabbal mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ñu di leen fàttali ne rek yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 am na ñoo xamante keroog dañu doon laaj ba xam seede ba yonent yàlla isa alayhi salaam seede ci kanamu boromam subhaanahu wa taala keroog bés pénc ba xam aaya bi dinañ ko wéyal walla fala ñuy yem newoon nañ leen incha allah bu ñu yàlla mayee fan bu gudd ak fekk tal dinañ leen ka wéyalal tey nag ñu fas yéene wéyale aaya jooju nekk ci ali imran suratul ali imran buur yàlla tabaraka wa taala fa mu laaje yonent yàlla isa alayhi salaam ne ko ah, baxam yaane nit ñi jàppee leen mag sama wayjur bu jigéen di ñaari yàlla ngeen bàyyi fi yàlla la yonent yàlla isa tontu ba keroog mu ne yàlla ne ah ñii de say jaam lañu de boo leen bugale yaa yey seen kaw yaa moom waaye nag boo leen jéggalee tamit a ah, yow yaay ki noot nit ñi ci lépp yow la sa àtte matale ci weneen àtte bu dul sa àtte foofu la aaya bi yemoon moo tax nga déggee ci ne yéen ca la isa da ko ne in tuazibuhum fa innahum ibaaduk bu dee da nga leen mbugal de ah say jaam lañ de yaa am sañ-sañ ji ni say kaw jaam yi waaye nag wa in taxfir lahum boo leen jéggalee bu dee dang leen jéggal fa innaka naka yow yàlla antal aziz yayki noot nit ñi ci seeni nekkin yaay ki am kawe ak nootaange ci sa kaw jaammi alxakim yow la sa atte matale atte ju mat bi nga xamante ne yow dong yaa mën a àtte sa jaami bu màndu àtte bu jub ba Isaa waxee lii boromam buur yàlla daal wax suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko qaala allahu haada yowmun yanfau saadiqina sidquhum yàlla bu yàlla buur bi wa taala bu isa alayhi salaam waxee yàlla ne haada lii isa wax ni yan fa'u mooy lay njariñ saadiqiina sidquhum way dëgguñi ci dëggu bu ñu nekkoon di ko dundu fii ci àddina waaw yàlla nee na la isa wax ni lii mooy bés bi nga xamante ne képp kuy dund ci dëgg boo ko jibalee keroog ci kanamu borom bi sa dëgg boobu mooy la lay njariñ ndax bés boobu amul dara la doomu adama di andikom la ngay tricher doo mun a tricher ci leen doo mun a wax lu dëgguwul doo mun a won la nga nekkul doo mun a présenter la nekkul ci yow moo tax yàlla nekk haza yow ma bés bi mooy bés bi nga xamante ne yanfau saadiqina sidquhum ña doon dund ci dëgg keroog la seen dëgg di doon la njariñ ci kanamu yàlla borom bi ne bi léegi lahum jannatun tajri min taxtiha al anhaar dinaa leen fay dinaa leen yenkeewal dinaa leen baaxee këru arjana bi nga xamante ne day daw ci ron étaas yi ay dex yàlla ne xaalidiina fiiha abadan fa la ñuy sax bed faw duñ fa mën a génn duñ fa mës a génn tamit ndax su boobaa yàlla mu am limu mu jëflanteel way dëggu ñooñu yàlla wërsëgal këru arjana la muy jëflantek ñoom mooy radiyallahu anhum yàlla buur bi da leen gërëm lañu nekkee woon di ko dund wa radu anhu ñoomit ñu gërëm la leen yàlla traser ngir ñu teg fa tànk topp yonent bi topp ndigle yàlla yi bàyyi tere yi bàyyi lépp lu leen yonent tere waaye lépp lu leen yonent bi won ne lii mooy la leen yàlla digal ñu def ci seen kéemtalaay kàttan waaye lépp lu mu leen won ne lii la leen yàlla tere ñu sore ko comme nu ñuy sore safara su leen di waaj a yàlla ne ñu meloo melokaan wi keroog bés pénc dama leen di gërëm dama leen di acceptel nangul leen moo tax mu ne radiyallahu anhum yàlla da leen gërëm nañu nekkee di dund fii ci kaw suuf si waradu anhu waaye ñoomit dañoo gërëm bépp atte ba leen joxoñ bépp atte ba yàlla atte seen kaw dañ kaa gërëm waaw ñu fi nekk ñu nekk fi di digle lu baax di tere lu ñaaw ñañ koy def nag léegi-léegi nga am ku leen di yëjji mais duñ la faale léegi-léegi nga dégg xaste bu mel ni yaa layta bu fi nekk sax di tere lu ñaaw di digle lu baax léegi-léegi sax dalay jaral moo ne lu ma nekkee nii duma ko bàyyi jar na ko déedéet axakañ jar na ko de yàlla la ko sant nekk ci rek waaw tristesse bu nekk yaa koy dund ñu di la ménage ñu di la wax wax kenn dut mun a dégg ñuy di la sànni baati ginnaaw ñuy di la wax lu ne waaye nga nekk ci rek xam ne lii mooy ndigle la yàlla digal ne nañ ko taxawe ah nga nekk ci amir bil maaruf wa nahyanil munkar di digle lu baax di digle njekk di tere lu ñaaw di tere lu bon daalikal fawzul adim yàlla ne képp ku nekkee nekkin wi lii mooy ngañe bi nga xamante ni foo ko takk ci màggaay weesu na ko la yàlla ne nag loolu mooy lu màgg amul dara lu gana a màgg loolu moo tax yàlla ne daalika loolu ma leen nettali nii ci ginnaaw ah ah fawdul adim loolu mooy ngañe ngañ maa bu mag képp ku bëggu gañe lu mag nekkal ci ndigle lu baax di tere lu ñaaw yàlla nee na lillaahi ñeel na yàlla mulku samaawaati nguuru juróom-ñaari asamaan ci yàlla la nekk ci moomeelam la nekk wal ard ak nguuru suuf si ci nguuru yàlla lañu nekk wa maa fi hinna ak lépp lu nekk ci diggante asamaan juróom-ñaar ak lépp lu nekk diggante asamaan ak suuf lépp ci moomeelu yàlla lañu nekk buur bi tabaaraka wa ndax yàlla moomu bokk na ci kàttanam ak ci man-manam mooy buur bi nga xamante ne wa huwa naka moom yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir qadir ki ci am kattan bu mat sëkk la waaw yàlla telewul dara ci leen yàlla telewul dara ci dara yàlla lépp la man telewul dara amul yàlla lumu mu tele jalla waala moo tax gannaaw bum mu waxee nitu arjana yooyu ñu teg seen tànk ci la leen yàlla gërëme ñoomit ñu gërëm yàlla ñu nangul yàlla ci la leen yàlla sant yàlla buur bi nee na loolu ma wax ni fawdul adim mooy ngañmaa bu mag waaw ñii ñoo gañe lu mag lu yàlla ne loolu mooy lu mag nag amul dara lu ko fiiti ci kaw ci màggaay buur yàlla daldi jeexalee texte bi mu daldi jeexale aaya bi lillaahi ñeel na yàlla mulku samaawaati wal ard nguuru juróom-ñaari asamaan ak nguur ya nekk ci suuf wa maa fiihinna ak la nekk seen diggante lépp ci moomeelu yàlla la nekk yàlla jooju di buur bi subhaanahu wa taala wa huwa mooy buur bi nga xamante ne ala kulli ci bépp mbir qadir ku ci am kattan bu mat sëkk la yàlla telewul dara daray tamit ump ko lépp la xam lépp lay gis lépp lay dégg te xam-xamam peeg na na doomu aadama yi nekkee subhaanahu wa taala moo tax mu ne wa huwa ndaka moom yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir qadir ku ci am kattan bu mat sëkk la su ko defee ñu déggee aaya bi ni incha du ñàkk bu ñu delsee beneen yoon ñu dugg ak ci beneen aaya bi nga xamante ne moo toftal ci kaw aaya bi saa saa'iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fo ñu war a yëkkati jotaay bi ndax ñu war a joxe xibaar yaa ngi nii taxaw ñu war leen jëbbal bërëb bi ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala mu wërsëgal ñu lépp lu ñu dégg yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu di ci jëf li ci gën a rafet waaye ñu di si tànn la si gën a jekk amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma ya ilahi nasaluka allahumma an taghfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al muqaddim wa anta al muaxir laa ilaha illa anta nastaxfiruka wa natuubu ilayk baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu